alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi loon di ndokkeel ci weeru koor wi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla ñu ko yàlla màngloo ci. yoon bi nga xam ne mooy ci lañuy amee ñuy amee ngër ngërmande yoonantam ak ngërmande suñ kilifa diine yëpp daanañ am aada waxtu woo xamee ne weeru koor ñëw na ñu topp sunnaay suñ bàyyi def ko weeru alquran weeru alquran guddi weeru alquran bëccëg waaye nag xew-xew yi nga xam ne xew na ci àddina bi ba tasaare nit ñi tax na ngir def ko ci weeru koor wi du yomb nam daan yombee ndax dëgg-dëgg booy jàngale da bëgg nit ñi di déglu waaye su fekkee yaa ngi jàngale nit ñi ñëwuñ déglu bu boobaa jàngale ma amut amoo bon du ñàkk njëriñ waaye daal amut dayoo bi ñu bëgg amuñ ci dayoo bi nga xam ne moom lañ ci doon yaakaar bon nag ñu ngi taxawal bañ ñu ngi taxawal dars bi euh, buñ koy def itam danañ ko def ci noo xam ne nu nu nu kii la nu mbóotu la nu secret discrète dañ ko def ci buntu kër gi duñ ko def ca mbaar ma te buñ koy def itam duñ ko def ci kanam mbooloo mu bëri lu mat vingt personnes doy na te kuy ñëw di déglu si na nga indi sa masque te boo ñëwee itam comme noonu ñu wax ne noonu lañuy ñuy toogee ku nekk da nga daan sa morom cinq mètres ci bu ko defee nag ci lañuy ñuy euh, am yaakaar naa ne agrément gouvernement bi euh, euh, d'accord ci li nga xam ne dinañ koy def waaye nag defuñ ko pour outiller ak suñ gouvernement ak suñu autorité dañ koy def rek parce que aada boo xam ne mbaax la goo xam ne suñuy maam ak suñuy baay yàgg nañ koo def ci weeru koor loolu la ñuy waaye daal xam nañ itam di ci wër yëpp waaye ba tey suñ lalee leçon bi gouvernement bi ne d'accordul euh, suñu autorité yi ne d'accorduñ pour mu am bu boobaa itam ñu xam ne du mu am rek topp ndigalu sa autorité moo topp ndigalu yàlla ñoo yem. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.